média yi Sénégal ñu ngi leen di siyaar oto yi ñoo war a ñëw Sénégal ñu bloqué ñu fii Maroc ci station bi 80 kilomètres frontière ci rond point bi 80 kilomètres frontière fi la ñu bloqué oto yi nii ñoo war a ñëw Sénégal boobu ba léegi ñu ngi ñu bloqué fii sonn nañ trop ngir yàlla ak rasul yi dimbali leen ñu ngir yàlla ñu ñu bisi ñu ngi nii oto yi ñoo war a ñëw Sénégal chargé nañ ba pare bagage yi ñu chargé avant corps la woon ba léegi. wallaahi avant corps lañ jël marchandise yu jàmbur. ba léegi ñu ngi ñu ci àll bi camion yi gis nga ay soble lañu yàpp soble kese la ñuy yàpp te dañuy dem Sénégal di dugg ñun ñu toog fii nii mënu ñoo dem ñu téye ñu fi boole ko ñu fi ñun sonn nañ quoi billaahi dimbali leen ñu ngir yàlla sénégalais yi ñoo nekk nii fii ci rond-point bi ak boo tëdd nii dañoo sonn dañoo sonn ñibbi lañ bëgg nangu ñoo bàyyi ñun ñu ngi nii toog ci tali bi dund mbaa dee lañ ñamale amul leneen kenn du ci nañ duñ dem fenn fii la ñuy dee pare nañ waaw

état Sénégal boobu léegi ñu ngi jooy jooy nañ fu ne génnee nañu hôtel bi léegi amatuñ fu ñu toog fu ñuy toog di waxtaan sax amatuñ ko léegi nag ñu ngi ci kaw tali bi ñu tëdd ci kaw tali bi dara fin lañ nekk ragaluñ ci dara te duñ dellu dara lu ñu yoon may ñu jël nañ ñu tëj prison ñu dem toog noppalu moo ñu gënal ñu toog fii di souffrir ndax kuñ dugal prison prison di la jox ngay lekk di la jox ngay naan bu sa peine jeexee nga génne génnee ne dañuy julli moo tax ñun tamit ñu ñëw fii ci rond point bi comme dañoo génnee amuñ fuñ tëdd ñu ñëw tëdd ci rond point bi ñun ñu ngi nii ci rond bi waaw ñu ci rond bi nii parce que ñoom ñoo ñu génnee fi ñu doon toog ne kenn du fi toogati ndax ñi dañuy tëj dañuy julli ñun nag génn nañ ñu ngi ci rond point bi tëdd comme ñoom ñoo ñu génnee ñun génn nañ ñu ngi ci rond point ñu ngi nii tax waaw papier yi nga leen di woon papier xam nga périmé wul deful dara papier yi dara nekk. waaye bu